salaamaaleykum internetu Sénégal tey ñu dalal fi Mame Gor Diazaka ñuy waxtaanee ci gouvernement bi musique euh, évolution actualité yi Mame Gor ñu bale nga nuyu suñu internet comme yaa ñu seet tey. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Sénégal. ci opportunité bi ñu ma may mu mun waxtaan ak euh, sénégalais yi nekk fii euh, ci biir dëkk bi ak ñi nekk ci diaspora bi ak ci àddina bi yëpp. ok euh, su ma la doon laaj première question nan nga gisee deuxième mandat wu président Macky Sall mu gagné ko nan nga ko gisee. waaw ni ma ko gisee mooy benn moment bi président di wut deuxième mandat xawoon na metti tuuti. Mhm. parce que am na ay sénégalais yoo xam ni. ànduñu woon ak moom. Mhm. parce que boo xoolee Sénégal seen euh, président mu ngi gagné à ci cinquante huit virgule sept pour cent. Mhm. donc y' a pour cent yoo xam ni euh, wootaluñ ko. Mhm. donc nag man tey su fekkee am na conseil boo xam ne dama koy jox président tey ji mandat bi mooy mandat quarante trois pour cent yooyu nga xam ne ànduñu woon ak moom. d'accord parce que ñooñu liñ leen metti wala li nga xam ni doyu leen ci moom ba tax ñu wan ko ginnaaw bañ ko voteel donc ñooñu na fexe ba. parce que dafa am benn wax bu mu wax parce que daf ni moom bi muy door a jël pouvoir bi. Mhm. gars yi doon wax ni c'est un président par defo d'accord mu ñëw ñafe benn moment te tamit am na benn qualité bu mu wane mooy tey ji bi mu jëlee bi mu gañee ba léegi nii. Mhm. Sénégal yëpp ñu ngi doon déglu di xool ndax dina am fuite ku ñuy falak ku ñuy folli wala yooyu mais franchement wane na ni moom c'est un grand président parce que ba démb kenn mhm. mënu wax lan mooy xew. moom rek moo am na ay ministres yoo xam ne dañ leen a ba pare woo leen téléphone ni leen. nommé nañ ci gouvernement bi. nommé nañ leen parce que consultation bi ñu ko def peut-être def nañ leen ko sax à leur parce que mën nañ ñëw waxtaan ak yow di la poser ay questions ci dara waxtaan ak yow ci dara ay 3 mois ci ginnaaw te doo xam ni sax yow gars yi ñu ngi lay consulter léegi gars yi dañuy jékki-jékki rek wala téléphone ni la ah yaa ngi ci biir gouvernement bi. d'accord ba campagne yi bu ma retourner en arrière dañ ci sonn. chaque jour vidéo attaqué nga Sonko Idrissa Seck bàyyiwoo kenn tey Macky Sall jël na nguur gi est-ce que tey su ma la doon wax ban message ngay lancer opposition bi pour euh, dialogue bi président Macky Sall woote. tey su ma la doon wax yow man bokk su fekkee ni ñoom bëgg bi ñu bëgg Sénégal dëgg la ci ñoom. Mhm. parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal muy man. Mhm. muy Macky Sall muy ñi nekk ci opposition bi ak ñi nekk pouvoir ñun ñëpp ay Sénégal Sénégal bu doon tàkk du bàyyi kenn ci ñun ñëpp. Mhm. ñoom dañu bëgg a ñëw defar Sénégal. parce que man mënuma d'accord nga ñëw ni da nga bëgg a defar Sénégal am koo xam ni sénégalais yi tànn nañ ko ni moo fi ne mu tàllal loo loxo ni la kaay ñu waxtaan yow da nga aspiré yor dëkk bi. ñëwoon ko li mu wax loo xam ne ànduloo ci nga ko lii ànduma ci li mu wax nga ànd ci nga ni ko li ànd nga génn wan ko sénégalais parce que loolu dafay wane nii loolu bu boobaa sénégalais dinañ leen gën a naw mhm. mais taxaw rek naan nit ki def fi dara na dem na dem na dem te yow amuloo programme man loolu moo taxoon ma doon xeex pour Macky mhm. parce que tamit Macky loo ko mun waxal ci biir sept ans yi teg na fi ay affaires yoo xam ni dafay song ay affaires inauguré ko mhm. ok donc nag ñun du ñu jël aventurier koo xam ne mosoo sax yor euh, salle de gymnastique ah mais Idrissa Seck yoon na nekkoon na premier ministre nekkoon na premier ministre mais mhm. ñaata temps la ko nekk benn comprendre la mhm. kañ la ko gëj a nekk kañ la gëj a nekk ci ay ci ci ci ci système bi donc nag tey Macky tey jii boo xoolee même bu ko Idrissa Seck nekkee premier ministre Macky il Macky dafa jaar ci ministère yëpp dafa def intérieur xam nga. nekk Idrissa Seck moo ko gën a yàgg ci politique bi aussi ah. gën a yàgg ci politique. Mhm. mais ki dafa pratiquer li li Macky pratiquer nguur. Idriss Seck pratique ko boo xoolee. ah Idriss Seck jeunesse yëpp daf ko opposé benn deux ans la nekk ci la nekk premier ministre après jeex na mais Macky Sall dafa def ministère yëpp def intérieur. Mhm. nekk ministre premier mhm. ministre. nekk président assemblée nekk président de la république. Mm -hmm. donc boo xam ni expérience moom. mais mënuñu wax ni am en ñàkk ko. accord su ma la doon wax attaques yi Sonko maa ngi koy wax sànq dama tudd tur tudd sa Seck nga leen di attaqué tey euh, su ma la doon wax Sonko lan nga koy wax. Sonko dama koy encouragé booy la il est hmm. jeune il n'a rien à perdre Macky Sall grand frère am la c'est le président de tous les Sénégalais bu fekkee xam-xam bi muy wax xam nga xaste dafa yomb hmm. taxaw naan système bi système bi système bi système bi système système moom politique am yëpp mu li ma mës a dégg yëpp mu wax ko système rek lay wax ah parce que système bi baaxul tamit c'est normal moo on va changer le système hmm. du politique tey jii système bi changé na Macky gagné na na ñëw système am boobu loolu muy wax ni peut-être xalaat na lu baax mu ñëw dolli ko bis bu demee ba wax moom mu ngi ci dernier mandat kon yow da ngay woo Sonko sa Seck Issa Sall mag dikke ñaa ñëw ñu rejoindre ak couche Sénégal yëpp nag ñëpp ñu ñëw jàppale président ci quinquennat bi nga xam ne moom lay def. d'accord mu réussir ay affaire après buy dem bàyyi ñu bàyyi leen ñoom ñu xam nga voilà mooy loolu mais mënoo ñëw lu nit def nga ni baaxul lu nit def nga ne baaxul. suñ la mhm. wooyee ni la kaay jàpp ci nga ne jàpp ma loolu fuite de responsabilité la. d' accord pour man euh, nan nga gisee gouvernement bi démb lañ ko dañ ko teg démb list bi génn am ñu sur Macky surprendre ñëpp yaa ngi koy wax sànq dafa changé chamboulé affaire yi 21 ministres xaw ma 20 yëpp mu dàq leen euh, indi ñeneen ñu bees surtout jigéen ñi fees nañ ci euh, am ñoo xam ne mm, taqaloon nañ leen fi. mu mu mu limogé leen lan nga gisee loolu. xam nga loolu soo xoolee man ci sortie yi ma mujjee def. yaa ay 10 jours ci semaine yi mujj rek sorti ma def yëpp ci loolu laa doon wax parce que tey jii mënuloo nekk un ministre de la république. Mhm. boo bindee cinq phrases def douze fautes. kan mooy def loolu gis nga yow maam Ngor gis nga nag yow da ngay attaqué noonu. te te euh, non man dama nekk ci réseau sociaux. Hmm. ci te dama nekk ci site internet du ma tudd turu kenn mais tey jii wax bu wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu. Hmm. man du ma wax turu kenn. xanaa nit tudd ma ma tudd la. mais man duma tudd tur nit parce que du ma tooñ. ban ministre waaw léegi ministre ban moo fi def faute xam ni tey jii yàgg nañ leen fal Sénégal. Hmm. bu ñu bindee cinq phrases def douze fautes même yow ministère bi nga yor. Hmm. bu ñu la ci posé question yow xamoo ministère bi lan lay tekki xamoo lan lan la war a dox ak lu mu warul dox. kon hmm. yow waroo nekk ministre. ba pare nga nekk ministre yoo xam dañ leen di jiiñ ay sàcc ak di leen jiiñ ay affaire ñu ne loolu moom Mame Mbaye xanaa Mame Mbaye Niang ngay waxal dama ni sa xarit boobu yaa tudd turam mhm. mais dama ni buñ la dee jiiñ ñi gaayan bi dafa toje moo nu senegal ñu la koy jiiñ sàcc di la jiiñ ay milliards mhm. man pour man Macky Sall éthique lay woote est-ce que la c'est quelqu'un boo xam ne dafa ñëw jënd senegal teg ay projet di ko réussir mhm. képp ku ñuy taqal naan kii dafa round na la écarté ay boy yu dynamique ñu xam nga ñu am fulla ñu am fayda ñu mën a doxal dëkk bi am yërmande nag ci sénégalais yi. Mhm. mu fal leen ñu jéem a liggéey Sénégal mu jëm kanam. Mhm. te nii ma gisee nii bi mu ñëwee il a changé presque vingt et un ministres ça veut que ni moom fast track boobu muy wax nañ ko nan la koy waxee sax. noonu la noonu la fast track wax mu ne gouvernement bi nan noonu la moo dafa bëgg affaire gaaw fat-fat. fat-fat waaw loolu la wax ba tey. donc nag tey jii ni moo ko gisee mu fal ay ministres yu bees yoo xam ni xam nga. intell intellectuellement boo leen xoolee xam ni ñuy jàng. am nañu niveau am nañu niveau donc yaakaar naa ni affaire yi dina gën a gaaw quoi. waaw léegi ministre bu waa taxawal ma ma ma. ñun ay olof lañ <laughs> mais dama ni. ñun mhm. ay olof lañ mais français nag mooy suñu langue officielle. waaw yow nan ngay xamee sax foot yi maam Ngothie si jàng soriwul. yow dëbbul ma yab de. <laughs> yow man ñu d'accord ñu dàq jàng ci réew mi Sénégal ñu dàq jàng ci réew mi Tëngéej lañ dëkk. ñun ñoo njëkk a civilisé Sénégal Dakar Saint-Louis Rufisque Gorée. waaw waaw. Mhm. d'accord léegi yow lu tax woowuñu la yow mi sonn ci combat gi. yow xanaa ñu jël sax benn mm, direction jox la ko wala agence sax wala loo xam ne yow mën nga ko gérer. non mais yow moom da ngay xeex di xuloo di te amoo si dara. non xeexuma xuloowuma xastewuma damay wax dëgg. waaw ah, léegi lu tax amoo ci dara yow xam man man samay waajur sum papa daf ma yar. Hmm. ci bàyyi fen moo gën julli. dëgg la man dëgg laay wax. Hmm. am na nag ñu muy déranger. d'accord mais man. damay jàppale président de la république sans condition. Mhm. bis bu xalaatee ni maam góor lii doy na ma pour ma dénk ko. Mhm. parce que ñëwuma di ko jàppale. pour mu pour attendre si quelque chose dama gis man ànduma woon ak moom ay temps jàppalewu ma ko woon. Mhm. mais bi ma demee ba gis ni politique bi mu teg pour le Sénégal neex na ma. dama ñëw jàppale ko. te nag ba ma ko jàppalee ba léegi wana ma ko ginnaaw est-ce que la donc c'est quelqu'un boo xam ni man dama jàpp nii nit ñi war nañu xippi seen bët xool jàppale ko. parce que lu yàlla samp ku ko daane jaaxaan man dama koy jàppale sans condition bis nag bu toogee ba xalaat ni maam góor war naa ko dénk lii mu woo ma ni ma kaay ma dénk nii ma su ma ko téye di nga xam ni góor yàlla. waaw léegi yow selon sa capacité waaw <laughs> selon sa capacité selon sa capacité. <laughs> Ah. nga toog nga xool nga xalaatal sa bopp tey Macky Sall lan la war a man lépp laa mën a def. man lépp mën ministre yow mën nga ko dénk. man lépp laa mun a def mën naa yor réew mi. déggal loolu li gën a garaaw président moo gën a fort lépp mën naa koo nekk pour pourquoi pa président de la république xam-xam yow est-ce que yow jeex ak ay idée. d'accord loolu la mën nga mën nga yor lépp mais mais mais sérieusement ci côté musique bi ngay évoluer non xaaral le fait que nga naan man lii rek laa mën a yor ça veut dire que ni yow tu es un homme limité. d'accord. nit yaakaar naa ni bu ñu demee ba xool la ñëw ni la lii lañ lay dénk war nga ko mën a gere wut nag ay nit yu la conseiller. jàppale la pousse la nga dem sa yoon. yow nga yaakaar ni DG yi ngay gis fii wala ay yenn responsabilité yenn yi ñoom yëpp ñëpp ñoo koy dox. Mhm. mais yenn saa yi xam-xam puso bu réer la xale sax mën na ko far. Mhm. tey ji luñ la mën a dénk war nga mën a am ay nit yu am xam-xam bu dee wàll ci wàllu euh, wàllu wàllu média la ma woo la nga ñëw di ma conseil mhm. médiatiquement. bu dee wàllu sport la ma dem woo ku nekk sport. mu ñëw jàppale ma. ma ak li ma xalaat ak samay bagage ñu prôné doxal Sénégal jëm kanam te man jantal man laa lu ma pose bu <laughs> <laughs> d' accord est ce que yow li ngay def nii yëpp euh, Macky Sall am nga si retour wala ku ko jege ñëw félicité la. non Macky ci boppam sama xarit la. déggoolu ma la wax man sama la. Mhm. yàgg naa ko jàppale xam na ni maa ngi koy jàppale. Mhm. jox na ma ma. d' accord ma ànd ak ko moo respecté wul. Mhm. est ce que comprendre te franchement xam naa ni jox na ma cër bëgg na ma ah respecté na ma parce que fu ma dem fu ñu daje boo amoon junni nit. dina ma tàllal loxoom dina ma xëcc dina waxtaan ak man cër bi ma war a jox te de temps en temps mën na mën naa ko gis. d'accord nekkuma euh, nekkul nag loo xam ni euh, euh, dama koy def parce que damay daw di neexalaate wala def dara non dama gis ni mu ngi liggéey réew mi te c'est un guerrier xam nga wax président Macky Sall guerrier la. Mm-hmm. léegi nag tey jii lenn rek. la defagum bi ñu commencé léegi nii. Mhm. mandaam bu bees bi dégg déclaration rek la def boo xam ni dafa mel ni man la ko defal mooy anarchie bi am ci dëkk bi. d'accord mu ne dañ ci war a jóg. Mhm. te dañ ci war a jóg tey muy man muy yow muy képp ku mu mën a doon. tey jii sénégalais boo gis mu dagg visaam dem États-Unis taxaw ci tali yi di foto c'est parce que tali yi dafa leer en verdure nice nga dem fa di photo mhm. bu dee France noonu bu dee Espagne noonu mais Sénégal mënuñu jël VDN bi nga xam ni comme euh, champs dafa nekk alinement bu rafet. lépp ñu def ko ay parking oto kenn jëndatul oto. dañu war a wut ay hangar yoo xam ne fa lañ koy teg ku nekk wut sa biro mhm. fii ay biro yuy loué oto. bu ñu mhm. ñëwee nii la yow tel oto nga bëgg nga jël benn booy mu taal oto dem ci hangar ba jël oto bi. bu fekkee ni kuy jënd oto la mu dem ci hangar boobu ñu jënd ko anarchie bi nekk fii ci dëkk bi ñu dindi ko fu nekk garage mécanicien ñu teg ko fa mhm. ku nekk lal sa taabal ci mbedd mi di jaay suñ la waxee nga ni non bu ñu ma naree jële fii sama sama sama sama sama ruu la ñuy jël mais du ma fi jóge parce damay daan sama doole ñun sénégalais yi ñun ñoo war a mën a defaral suñu bopp suñu dëkk taxaw di saagante ay ndey di commentaire ci internet di saaga ndey wala nit yor ay yow moom sonal nañ saaga non man je m'en fous xam nga saaga yow est-ce que da nga lire man dama lay wax man je m'en fous hmm. xam ki ma yaakaar xam na la tudd maam Cheikh Ibrahima Fall xam na lan la wax. Mm. Seera Fall nee na wasin naa rek laa déggul wasin na rësin na rek la déggul gis nga nit. soo mm. xëyee suba teel ba ngoon te duñ la critiquer duñ wax ci yow. Mm. xam nañ ci n'existe plus yàlla mi sàkk ñëpp gars yi dañ koy critiquer am na ñuy sàkk yàlla. am na yoo xam ne est sonaloo sénégalais yi tamit nag maam góor. sonal yow ñoom ñuy wax lii hmm. du ma fen hmm. du ma violé hmm. du ma yël jëfi jàmbur maa ngi liggéey sama jabar maa ngi leen yor teg leen daana très bonne condition ubbi ay société teg ci ay sénégalais ñuy liggéey ma leen di fay amee lu ma leen 1000 francs man kay damay fay baax ci société bi mais sonalu ma kenn xam nga ñoom ñoo sonalaate ñiy sàcc di fen di wër di wuruj ñooñu ñoo sonale mais man sonalu ma kenn <laughs> voilà. d' accord <laughs> d' accord léegi poste euh, premier ministre bi maa la doon wax sànq bu mu bëggee éliminer euh, lan nga ko gisee tey. non ni ma ko gisee mooy man dama ci kontaan xam tax ma kontaan ci. Hmm. parce que tey jii bu fekkee ni Macky Sall xam nga bi mu nekkee ci premier mandat bi sax garaawul mais deuxième mandat bi gars yi jàpp ni cinq ans la war a def dem yoonam tey boo jëlee def ko premier ministre rek. jox ko yenn privilège yi wala yenn affaire rek da ngay gis gars yi ci parti bi ci boppam ñëpp ku nekk di xeex yaakaar ni day nekk bataille xam ay ponkal yu xeex. Mhm. ku nekk da ngay wut sa benn clan fii affaire xam nga yooyu dafa yàgg indi ay problème Macky nag nandité la ñun on a un président nandité li gars yi di wax nandité. pousse yëpp la brouillé fi mu toll nii mënoo xam kan la Macky di préparer pour 2024. waaw yow kan nga gis sax yow 2024 dama ni man gisuma kenn. man Macky Sall rek laa gis. léegi bu yow Macky bu demee yow maam Ngor yow fooy jëm. non mais bu demee. Hmm. dinaa xool koo xam ni franchement gis naa ni am na yar am na teggin. ku xanaa Amadou Ba la bëgg Sénégal non ku mu mën a doon. mën na hmm. nekk Amadou Ba comme mën na nekk keneen. Hmm. mais li ma intéressé mooy ku bëgg Sénégal ku yaru ku dul saaga du xaste xam nga man tey jii loo mën a wax maam Ngor. dinaa génn di def ay sorties mosoo ma dégg ma saaga ndey mosoo ma dégg ma wax wax bu déplacé. dëgg laay wax am na ñoo xam ne dëgg daf leen di feebar. ñoom bu xam ne bu ñu dégg feebar bu ñuy dégg dëgg rek di liw siburu commencé naan médicament. Mm-hmm. parce que bëgguñu dégg dëgg. man nag jeu di la vérité peut-être mën na metti voilà. Mm-hmm. Euh, ñu ngi may wax ne est-ce que bëggoo nekk meeru Tëngéej. kan meeri Tëngéej. waaw wala da ko xeeb. mais mën naa ko nekk. ah parce que Tëngéej laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee te def naa fa nag lu jar ma war fa mën a nekk maire parce que lycée Ablaye Sadji bu mu yàqoo. Rufisque waa yëpp daw man maa ko defar. génn mm. ay millions defar ko sama xaalis. Mm-hmm. boo demee Tëngéej soo ko laajtee ñu wax la ko. jardin public bi ñuy defee ay défilé di fa def organiser yi mani manifestation fa lañ defalee défilé 4 avril bi. Mm-hmm. maa fa def lumière. Mm-hmm. ak fonds propre y' a même pas longtemps ci fin d'année bi may naa fa ay cadeau ay xale yoo sonn plus de deux millions cinq cent trois millions. donc man lépp lu ma am Tëngéej laa ko yóbbu Tëngéej mu gënal fu mu mën a am. parce que fa laa juddoo boo sama garanté ne à Rufisque nga ci gis. Mhm. ka nekk maire maa ko gën a nekk Rufisque waa fop li mu li mu mën ci tëngee rek laa mën ci tëngee. Mhm. donc kon war naa fa mën a nekk maire war naa fa mën a nekk lu ne. ki fi yàlla teg ñu jiite jiite suñu réew. Mhm. ñu jàppale ko. est la Sénégal euh, France fii lañ doon wax naan Macron Macron avant muy ñëw ñëpp naan Macron leer Macron tey gis nga France dafa am Champs-Élysées yi mel ni guerre dafa am. est la. man gis naa sax français bu sol gilet bind ci ginnaaw ni Macron dafa war a xool ci Macky Sall est-ce que comprendre la mhm. donc nag ànd ak Macky Sall yow nga ànd ak Idriss Seck wala ànd ak Macky Sall yow nga ànd ak Sonko te warul tax ñu nekk ay noon kenn ku nekk dafa war a gis li li dox na mu wax ko li doxul mu wax ko te mën ko ko wax dans la discipline de doo saaga kenn mësul dégg maam buur ci télévision si rajo wala ci benn ku ko mës a dégg da ko wax mu saaga wala mu wax wax joo xam ne boo ko déggee da ngay taf say nopp dëgg laay wax dëgg bi nag peut-être dafa am ñu muy déranger. d' accord Sénégal di la jaajëfal tey moom yaa déplacé wu boo amoon tamit beneen message booy lancé nga wax ñu ko. non message bi may lancé rek moom mooy di bëggee bu baax euh, waa Sénégal parce que tamit ñoo ma may opportunité bi te gis naa ni des fois saa yu ma defee ay sorti damay gis ni site bi daf koy génne mhm. est mhm. te tamit mënoon naa di fay sax pour mu am. parce que nag Sénégo du site bu ndaw. Mm. donc maa ngi leen di félicité di leen encourager ci li ngeen nekk. tey jii man Sénégo sax yenn saa ngeen bind benn article ma gis ci commentaire gaa naan waa yéen waa Sénégo ay traître ngeen ay te muy lire Sénégo. Mm-hmm. est-ce que comprendre la bëgg expliquer. Mm-hmm. donc nit ñi kenn mënul kenn mënul leen satisfaire. donc yow da def rek li nga mën donc maa ngi leen di remercier ci opportunité bi ngeen ma may mu mën ñëw toog wax ak sénégalais yépp di ñaan tamit Sénégal gouvernement bu bees bi fi am président. mandat bi woyof ci loxoom. Mhm. attente bi sénégalais am ci moom ak yaakaar bi mu bañ a tas jeunesse bi am liggéey ñi feebar mën a faju xam nga. Mhm. insalubrité bi am ci dëkk bi ñu wax ci fexe mu dañ. xam nga les sénégalais de la diaspora. Khalifa Sall ak Karim Wade ñoo ngi jooy guddeeg bëccëg pour seen i. est-ce que mënu leen gracier tamit changé ñu jàppale leen mu mhm. léegi nag gracier. Khalifa Sall ak Karim loolu benn nit. moo am màqaama def ko muy Macky Sall defal na ko Karim Wade yaakaar naa ni mën a bañ a jomb Khalifa Sall mhm. donc nag kenn ñaanalul kenn yàlla mu nekk ci kaso ba dee fa mhm. donc ñu ngi koy ñaan bu fekkee mën na ko mhm. mu libéré ko parce que tamit yaayam mag la am na njaboot te war na mën a dellu ci biir ay njabootam donc man yéenewuma kenn kaso xam nga ñëpp jàmm laa la yéene donc di ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm kontaan nañ ci merci beaucoup ñu ngi fi ñëwee c'est